di rafetlu bu baax a baax nag teewaay bi délégation yi jógee ci réew mi yépp mën naa ne sax ci bitim réew ñëw fii fekk suñu fii ci Mbàkke wuyu si wooteeb xadara bi waaye bala ñoo sooy tamit ñu ngi nuyu bu baax sunu sëriñ sunu xarit imaam Yaxya ak njabootu tijaan yi fi nekk ci dëkk bi yépp taalibe cheikh yi nekk ci Mbàkke yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare kàddu yi kàddu yi dalal la dala leen jàmm ndax tey naam xam na lool si ñun waaye dañ ne bis bu mel nii bu la si yàlla boolee danga war a bàyyi sa yitte yëpp ñëw teewe ko ndax day bésum ñaan di bésum ziar moo tax dañu yëkkati kàddu dalal bu baax ñi fi teew di wax ne am nañ mbégte bu baax a baax dalal fii ci Mbàkke lii nag ku ko gis sam xel war naa gën a dal ci réew mi ndax fii day barabu Sëñ Tuuba waaye bu ñu fi lalee mbalaa mu mas way tool nii mbooloo mi yëpp ñëw nga xam ne moom la ñu dëkkee fii ci Mbàkke day wane nekkin bi nga xamante ne nii dañ koo nekk ndax fii organisation bi sax doo xam walla nga xàmmee ku fi murit wala ku fi tijaan wala ko fi leneen ndax dañoo nekk benn bopp te kenn mënu koo xaar di sant bu baax nag sama turu bopp ak te dul turu délégation bi ma àndal yépp ci bis bi ndax it ñi nga xamante ne ñooñu ci boole at mu nekk dañ fi teew wala yónnee fi ndax li ñu wax sànq ci xale yi nga xam ne ñu ràññee ci bu baax a baax mel ni ma ngeey seen taxawaay ci dëkk bi seen jëfin lalu ci dëkk ak ci ay valeur yu rafet lalu it seen comportement boo xamante ni ku ne si ñun mën na koo rafetlu loolu dañ leen ci sant bu baax baax di ci gërëm di wax ne ay royukaay lañ ci dëkk bi te it lépp lu nga xamante ne nii dañ koo yëkkati mu jëm ci développement dëkk bi kenn du leen ci jiitu te kenn du leen ci man kon day baax. seen kilifa yi toogee fii ñu seede loo nga xamante moom lañu gis ci ñoom ba pare di bu baax seen taxawaay kàddu yi mën naa bañ a gudd kàddu yi cant la sant yàlla bu baax a baax bi ñu boolee ci bis bi at jële weesu di ñaan yàlla ñun ñëpp ñu yàpp koo teewee ndaxit bis bi day bisum njariñ jariñu fi ñu nekk tey ak it fa ñu jëm kon ñu ngi leen di ziyaar bu baax di leen sant di leen gërëm ci turu population Mbàkke yépp ndax it bis mel nii daa bokk ci bis yi nga xamante ne day ñoŋal sunu diine yokk sunu pas-pas ba pare gën a dëgëral sunu ngëm ndaxit it lu ñu boole ñun ñëpp mooy yàlla ak ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak i sunu kilifa diine yu baax yi nga xamante ne ñoo bokk lépp waxuma sax bokk deret waaye ñoo bokk pas-pas ak bokk jëmu loolu nag ñun ñëpp dañ cee war a rey dañ cee war a roy ànd ko nga xamante ne mooy sunu sat fii ñu nekk ak fañ jëm kon nag ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp di ñaan yàlla ci barke bis bi ci barke ñaan yi fi ñaan ci barke kilifa diine réew mi yàlla mu yokk jàmm ji ci réew mi ba sunu yéene ñun ñëpp yi am ci réew mi yàlla jàppale ñu ba yàlla may ci lu koy sunu njort mën naa it wax ne teewal naa fi président de la république Macky en tant que ministre en tant que membre du gouvernement ku ne si ñun xam na taxawaay bi am jëm ci diine ku ne si ñun tamit gis na ni mu taxawoo. dëkku mel ni Tivaouane waaye tamit dëkku mel ni Touba ci wàllu infrastructure ci wàllu ci wàllu yëpp loolu nag dañuy ñaan yàlla mu mu sax ci réew mi ndax ñu gën a bàyyi xel bu baax a baax kilifa diine yi gën a bàyyi xel tamit barab yooyu nga xamante ne yàlla fa nekk yàlla kese fa nekk ñu war koo taaral ba méngoo seenu dayoo maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam waaye ren it bi la yàlla mayee jot ñëw nga teew si fekkee ko ak ñoom dañ lay wax rek lii oustaz Babacar Niang wax rek lañ lay wax dañ naan la jërëjëf yàlla na la yàlla fay ndax taxawaay bi nga ñëw ànd ko ak ñun ñu nit rafetlu nañu ko ak délégation bu mag bi nga àndal ñëpp Serigne Omar Tandian fa tabarakallahu nga xam ni ñoom ñii bokk nañ ci ñi nga xam ni tey ñoo fi wuutu Cheikhul Hadj Malick fii ci gox bi ci deret waaye ci tariixa waaye ci xam-xam ak ci lépp lu mu mën a doon kon ñun bu ñu ñëwee ànd ak moom ànd ak waa Tiwaawan ak lii nga wax ci ñoom xaj magey fa tabarakallahu lépp loo xam ni mu ngi développé dëkk bi ndax loolu rek lañ leen yare ku xam Cheikhul Hadj Malick si radiyallahu taala anhu xam ni objectif am ci diine mooy joxe respect waaye fexe ba lépp loo xam ni dëkk ak ña ko samp ak ña koy doxal ña nga ca nekk ca waxtu wa di ko doxal ñoom ña ñu am ñu ànd taxawal leen kon nag yow it fa tabaarakallaahu monsieur le ministre ñoo ngi lay sant ci sa teewaay ci tuuru Tiwaawan Serigne Babacar Sy Mansour ci tuuru Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy Al Amin suñu mag suñu sëriñ ñu teewal ko fi ak turu ab naawul xadara nga xam ne sëriñ Fataax Sarr fa tabaarakallaahu moom moo ko jiite kon boo teewee ñu wax la jëf ci dagg sa yitte ñëw toog ak ñun bu doon benn waxtu ku nekk xam na fii jamono toll yéen ci ay activité waaye activité yëpp lii def ci bokk ndax benn mënul dem bàyyi sa moroom kon dañ lay ñaanal yàlla li ñu dégmal muy élection yi ñu ñaan yàlla comme ni ñu koy waxee toujours yal na yàlla def ci tawféex yal na yàlla seral ko guy yàlla xam na ki mu war a jox réew mi yàlla pare na démb tuutil ko man tashaa'u la yàlla wax yàlla nee na ki ma war a jox réew mi xam naa ko man yàlla léegi nag yéen nit ñi yéen lay dénk rek di leen dànkaafu ngeen ànd ak dal ànd ak teey xam ni bu ëllëgee yàlla nee na drapeau bi ka loxo ka ma koy teg pare naa ko yàlla nag moo xam ñoo ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla def réew mi ki ci gën mu teg ko ci loxoom seen teewaay bëgg nañ ci te sa teewaay mooy teewaayu président mooy teewaayu premier ministre Amadou Ba ak ñi nga xam ne ñoom nga bokkal gouvernement bi yépp yal na la yàlla fay sa xol li nga bëgg yaa ko xam sañ nañ la ko ñaanal ci sa teewaay ci barke xadara bii ci barke waxtu wii nga xam ne waxtu ijaaba la loo ci ñaan yàlla nangul la ko yaa xam li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu